boole naa francs bi ñu ko facturé pour ñenti nit loolu mooy lan monsieur le ministre Amadou Mansour Faye waxoon naa la ko commission fii laa la koy waxaat dix-huit yi gouvernement du Sénégal tabaxal askanu Sénégal ngeen facturé ko askanu Sénégal cent trente-sept virgule matière France tabax leen offre spontanée la woon Mabay Bridge di entreprise Grande-Bretagne defoon na offre à cinquante deux milliards man maa juumoon wax quarante huit cinquante deux milliards soit une différence de quatre vingt cinq milliards yi ngeen yàqal askanu Sénégal benn comparaison lay joxe mën naa ci joxe yu bëri Ghana am na contrat ak Mabay Bridge pour quatre-vingt-neuf ponts en acier à cinquante-six millions de dollars bu dee dollar bi cinq cent la cinq cent francs la ça fait vingt-huit milliards dix à cent trente-sept virgule cinq milliards au de cinq milliards de francs CFA d'un pays qui fait partie des vingt pays les plus de la planète ñii naan naka la ñuy détourner xaalis nii la ñuy détourner xaalis ñii di wax bés bu nekk Guy Marius Sagna da ngay wax lu la neex kenn kenn mënu ko détourner voilà comment on détourne l'argent des Sénégalais et donc monsieur le ministre Amadou Mansour Faye dañoo bëgg gouvernement bi xam ne lii mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg ça ne peut continuer ça c'est un poignard sur le dos du Sénégal et des Sénégalais et le plus grave dans pour ay doxandem le plus grave dans pour France ndax lan ay dessert du dëgg du yoon nous on défend l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais quatre-vingt-cinq milliards dafa bëri ñëpp ñu ngi naan yoon bu baax amul kaagit yoon bu baax amul Abeyan yoon bu baax amul Niassia yoon bu baax amul Fass Cekkeen yoon bu baax amul Ranérou Ferlo yoon bu yoon bu baax amul Kaolack yoon bu baax amul Matam yoon bu baax amul Fatick yoon bu baax amul Dakar vous vous faites vous volez quatre-vingt-cinq milliards de dollars au peuple sénégalais qui n'a pas assez de route amul yoon yu baax amul teen yu doy amul ay abri provisoire ak ñoom seen c'est inacceptable monsieur le ministre Amadou Mansour Faye yow yaay kan ba ñu dénk la xaalisu Sénégal of nag di la convoqué nga ne doo dem askanu Sénégal menacé ngay menacé ay journaliste naan boo ma ko waxatee ma dal sa kaw yow yaay kan ba nga yore xaalisu Sénégal fii kenn du fi wax sa vie privée waaye li nga yore ci askanu Sénégal dinañ la ko laaj yow yaay kan. ba OFNAC di la convoqué ci xaalisu Sénégal nga ne doy ñëw c'est inacceptable ce n'est pas un crime d'être le goro du président non non non non non ce n'est pas un crime d'être le goro du président mais c'est un crime de faire passer le parti avant la patrie c'est un crime mooy la famille avant la patrie c'est un crime de torturer les Sénégalais

Cheikh Oumar Diagne Ousmane Diagne ak ñoom seen je vous la parole à notre collègue Anta Gaye Demba Aminata Diawo se prépare. asalaamaaleykum monsieur le président maa ngi lay nuyu du nuyu Mansour fay le ministre maa ngi lay nuyu du nuyu les honorables députés di leen ziar monsieur le ministre salle bi ñi fi toog ñëpp kenn ku ne am nga chauffeur bi lay dawalal te chauffeur yi am na député yoo xam ne seeni chauffeur seeni chauffeur wutal na leen accord am na si député yoo xam ne seen chauffeur amulu ko ma leen ñaan député yooyu nga xam ne seen chauffeur yi amuñu ko nga jàppale chauffeur yi ndax chauffeur yi doléance boobu chauffeur yi nga xam ne ñoo ñoo nekk fii ci assemblée toog ci garab gee ñoo ma ko wax nga jàppale leen ndax chauffeur bu ci ne yaa nga wacc sa njaboot di leen jàppale te nee na payoor yi nga xam ne député yi leen di fay attanu ko attanu leen mënu leen mënu leen mënu leen dundal te danoo sonn loolu maa ngi koy ñaan nga jàppale xale yooyu nga xam ni ay chauffeur la ñu nekk fii di dawalal député yi bu loolu weesoo Mansour ñoo bokk suñu département yow département bi yaa moom yaay borom ndar ma di la ñaan xam nga département bi nu mu demee ma di la ñaan man nag ci arrondissement de Raw laa féete commune de Paal Fass Gandon Gandiol ma di la ñaan commune yooyu 60 pour cent yi ay chauffeur lañu ak village yi nga xam ne ñoo ngi suñu ginnaaw yaa ma ko gën a xam xam nga leen ma ma di la ñaan nga jàppale chauffeur yooyu muy chauffeur camion yi di chauffeur biis yi di chauffeur taxi surtout ndar di chauffeur car yi chauffeur sept places yi Mansour jàppale sa mbokk yooyu ndax yaay suñu maire ci ndar xam nga chauffeur famille la mécanicien bi ci famille bi la bokk tôlier bi ci famille bi la bokk apprenti bi ci famille bi la bokk malay ñaan ak Michelin bi ci famille bi la bokk ndax bu ci oto oto bu ci yàqu ñoo lay defar kon oto dafa am famille ma ñaan monsieur le ministre chauffeur yooyu nga xam ne euh, mécanicien nga xam ni ak tôlier yooyu nga xam ne ñoo nekk ndar nga may leen espace bu nu toog mën a liggéey ndax loolu dañ leen jàppale ndax ñu ci baree ci àll bi lañ jógee ci dëkk kaw yi lañ jógee ñëw ndar di daan seen doole te léeg-léeg da ngay gis koo xam ne lu am sax ku teg ay bagaasam pour defar loolu maa ngi la koy ñaan man suuf ñoo bokk lépp ndax ñun ñoo bokk suñu ndar neenu ak mbokk naaxu yaaboy la ci biir géej lañuy daje ñun mënu mën a jàppante dañuy daje ndar ndax ñoo bokk ndar te yow sama càmmit nga def nga de waaye nga dolli dolli xam nga suñu gannaaw xam nga village fi ne cinquante cinq villages ci quatre communes yi village yi nag barewul ay salariés ay chauffeur la bare fii ci ndakaar suñu ay doom ñoo ngi fi yor ay tax ma ma di la ñaan nga jàppale leen ay financement yi nga xam ni daanu mën a jënd oto yu baax mën ci liggéey ndax chauffeur dafa néew doole ma di la ñaan nga jàppale du ci particulier yi nga xam ni am amuñu licence ñoom ñoo sonal chauffeur yi waxoon naa la ko fële ca commission ya bi ñu nekkee fii ci salle bi def commission waxoon naa la ko man nag ci transport laa judd ndax sama papa chauffeur la sama borom kër chauffeur la sama borom transporteur la samay doom chauffeur lañu ñun chauffeur la ñuy dund ndax ñun amul kenn ku ci weer di dee nga taal sa loxo fayu dañu yor seeni oto di ñaq di ñëw kon nag dama bëgg nga jàppale nu jàppale suñu village yooyu ci ginnaaw yaa ma ko gën a xam dëkku chauffeur la maa ngi lay ñaan Mansour nga jàppale sa rakk yi jàppale sa mag yi foofu maa ngi la koy ñaan bu baax a baax te di la sant nag di la gërëm foofu laay yem. Merci, chers collègues. La Demba Ba. avec asalaamaaleykum en puɗɗora bisimillahi rahman rahim jofiniren ala